ku jiit njaag te moo njaag ndax lii lépp buñ ko mënee tey ànd gi ñu àndoon ak moom jàpp gi ñu jàppantewoon ak moom te moom amu ci benn intérêt ñun ñoo ci am intérêt moom ci lañu amee lii nga xamante ni li ñu am tey. tey jii bu nu agsee fii ba mën a demal seen bopp loolu ñu ngi koy sante Serigne Cheikh Abdoulahat Mbacké Gaynde Fatma mi gis ni kat ak fii dëkk bi toll di Touba amul leen loo xamante ni jigéen ñi war nañ si mën a jàpp lu dul xëy na ñu former leen si ñu war a mën a demal seen bopp loolee nag bi mu ko xalaatee ci la wuti woon ay partenaire bokk na si ONU Femmes di kuréelu mbootaayu xeet yi gën a mag di jàppale jigéen leen di formé nekk noonu jëli woon sax nag madame Oulimata Sarr booba ma nga fa woon doonoon fonctionnaire laataa mu doon ñëw doon nekk ministre ci gouvernement bi quelque temps après bi ñu ñëwee fii ci la leen accompagner si xeetu formation yu takku première cohorte bi toll na si quinze personnes ñu formé leen si wàllu transformation des produits locaux suñu ay meññeent yi nga xamante ne fii la fekk baax te ñu mën koo nag defaraat ba nit ñi mën koo jëfandikoo mu baax loolu seen wér-gu-yaram doon ay produits yu formation yooyu nag jox na leen si attestation di firndeel ni kat am ñu xarañteef mën a demal seen bopp naka noonee nag ñaari at après ci lañu jóg nag gis ni war nañu nag gën a mën demal seen bopp jënd seen ay matériel am mbooleem jumtukaay donte sëriñ bi sax joxoon na leen ñaari machine dañ ko écoulé dugal ci marché bi jaay ko def ko xaalis boole kook ñoom lañu am ngir mën demal seen bopp Ibra Tine mi jiite GIE bu mag bi di xéewal dina ko biral ginnaaw bi itam ci lañ wut ay bagages euh, comme amoon nañ formation bi day jaadu ñu am départ départ bi nag Sëriñ Cheikh Abdou Bali moo ñu joxoon ay machine ñëw bi fi bi ñu seetsee comme nag amuñoon moyen am nañ formation bi ñu jaay machine yi léegi xëy na bi ñu calculé affaire bi xaw naa tuuti ci euh, modeste moyen yoo xam ne am naa ko ma yëkkati fukki junni tagal leen ci wan leen ne mën ngeen a départ te lépp luy euh, matériel dinaa leen ko indil. jigéenu umul xuraa tey jii bu nu mënee am exposition bu ne mel mu doon ay savon savon liquide ba si ay jus de fruits ay céréales locales dafa fekk ni kat danoo am ndimbalu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma moo tax cérémonie bii de ñoom ñëpp teewoon nañu bàyyi ko fu nekk nag amee loolu cant sëriñ bii nu jàpp ni kat wan na leen nuy nappee waaye bokk na si formatrice yi tax tamit ñu gën a mën a màccu muy soxna Bintu Ndaw ak soxna Maguette mi nga xamante ni tamit ñooy pionnières yi nekk ci bopp yi leen di gindi saa su nekk boole kook leen di accompagner woon nañu defit présentation des produits. bisaab la bi jinjeer la gingembre bi buy la bi buy la waa léegi ñu ñëw ci suñu céréale locale bi lii sankal la bi araw bi cere bii caagri ñu ñëw ci saabu fóot yi nga xamante ni bii nii yi sax dañ ñoo mere ndax bitigi jaayatuñ saabu benn saabu bii 300 lañ koy jaayee karité bii nag moom dafa dañ ko boole composé ko ak ay yu baax a baax a baax yoo xam ni jëru sax ngay diw diw yéegi day yàq yaram yii rek ngay diwoo baax na baax na ci njaboot gi baax na si yow saabu bi nag saabu xaal ku ne xamoon nañu xaal dangay lekk sànni lekk lañ ci xamoon mais léegi affaire bi day gën a yokk léegi bii saabu xaal la boo ko sangoo moom dangay des na si naka noonu nag tey jii bi ñu leen formé ba pare ba nu amee jumtukaay yi ñoo ngi commencé nag di jaay loolee mu ngi dugal koom bu bu liggéeyee ba noppi jaayee ko yomb ñoom ñoom itam ñu dem jaayaat ko seen euh, seen seen biir am ñaari kees am kees fii ba noppi waaye am kees ci sa mbootaay ba nga xam ne moo kii mooy groupement vingt groupement yi waaye tamit am nañu ay partenaires financiers yoo xamante ni ñoo leen di lebal ngir ñu mën a wéyal seen activité bokk na si DER moom sax Ibrahima Tine mi dina biral ni kat 664 femmes dem nañu adhéré si DER te boo xoolee si xayma si koppar 170 millions dugg na seen loxo loolu lépp di tourner seen biir nekkaat si biir dëkk bi muy firndeel ni kat tàmbali baa waral lii waaye boo seetloo buñ ko biñ ko formé lépp lépp bu fekkee ne mën na 200000 ci la toll actuellement euh, président Cheikh mu ngi nii toog DER plateforme DER ñu ngi ci formé nañ ci jigéen ñu baree bëri fi mu ne nii maa ngi ci ñu ngi ci suñu fédération de mu ci 664 personnes yoo xamante ñu ngi bénéfice ci DER. boo seetloo xaalis bi lépp lépp mu ngi nii ñu bind foofu mooy 170 mille euh, kii 170 millions. Cheikh Fall di fecceex si nano DER di koy biral gën leen tamit encouragé ngir ñu gën a jàpp si DER ndax nag ay crédit am jafewul. apport yi takkuwul te dinañ la gindi contrat bi contrat moral la. loolu aussi dañ ci gën a soññ jigéen ñi ci nana créditaire ndax nana crédit ni ko sëñ Modou waxee dafa ñëw ngir yombalal accès financement jigéen ñi du laaj garantie garantie moral moral kese lay laaj du la laaj aussi caution booy déposé ngir mën a am financement te financement bi par la ni ngay lebe di fayee. noonu la say palier di yokke kon na na nano crédit foo ci bëgg a toll rek ci yow mii lépp ci la dépendre. Serigne Fallou Dieng moo fa teewaloon Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma moom it yëkkati ay kàddoom ci turu Serigne bi. ñu ñëw teewal Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ni Ibrahima Tine wax na ko léegi yàgg na leen a jàppale yàgg na leen a taxawu commencé woon ko ci formation yi nga xam ni à travers ONU Femmes indi woon na ko ci dëkk bi nga xam ni. daanaka quartier yi nekk tubaay yëpp amoon nañ ci umul xuraan nag ñu beraloon lañ ci loxo ndax bokkoon nañ ci ñi nga xam ni ñoo ëppoon ci li ñu leen joxoon à travers DER également muy nano DER bi yéen yéen bokkoon ci ñi nga xam ni yéen lañ gënoon a jàppale pour que ngeen am ci ay financement yu gën a takku loolu moo taxoon sëriñ bi yabal ma tey ndax dafa nekk ci ay yitte di prépare préparer cinquantenaire bi nga xam ni ñoo ngi koy waajal loolu moo tax mënul ñëw mu ne ma woon su ma demee naa leen ko naa naa naa jël ay kàddu yu cant jëmale ko ci ustaas Ibrahima Tine mi nga xam ni jàmbaar la ci wetam guddeeg bëccëg lu ñu woote moo ciy jiitu moo ciy mujj. bis bii mën nañu jàpp ni doon na bis bu am solo fii si umul xuraa ndaxte jigéen Touba yii de doon nañu ay modèle formé nan leen ñoo ngi dem si banque yi di lépp ñoo ngi fay nanu war a fayee. tey jii xaalis boobu noonu demul fenn fudul si biir dëkk bi ndaxte kenn dootul demati faneen di jéggaani leneen kon mën nañu jàpp ni gàcce ngalaama Ibrahima Tine waaye tamit Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mi waral lii ak jigéenu GIE bu mag bi nekk fii si Oumoul Khoura teewoon na fa cérémonie bi kàngam yu bëri Manel Fall di yëngu si wàllu santé ak wàllu jàppale jigéen ñi ak it Mame Thierno Dieng ñëpp ràññee ko tamit si wàllu développement délégation yu bàyyeekoo si poste de bi nekk foofu ñeneen ak ñeneen Serigne Mouhamadou Lamine Mbacké yebal fa rakkam di Serigne Djili Mbacké mu ñëwoon jëmmal bis bi